دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk julli di ko dégg kàdduy sell yooyu xam ne mbir am na lu am Chérif Ibrahima Haydara Atijaani mooy amal fukkeelu gàmm ak juróom-ñaar gi mu jagleel maamam sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ndigalu Serigne si Ahmed Tidiane si al Maktoum xalifa général de Tidiane Serigne Abdoul Aziz si al Amin Serigne Mbaye si Mansour Serigne Maodo si Dabbaax Serigne mbay si Abdoul Aziz ak mboolem njaboot Seydil Haaji Malick yëpp ca boggal Serigne Hadi Niass Serigne Sidi Mokhtar Kunta Serigne Souleymane Seck ca Ceneba dara jaale bis ba kan soppeem wuy juram Thierno Basirou Tall ca Louga kañ la bis ba samedi ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre fan lañ koy amale amookaat ca ginnaaw jumaa ja kuy def waxtaan wa imam maam góor toob ana ci lan lay waxtaan ci dundu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk jullit yi bis baa ngoog ngi ciy woo ñëpp assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu daarul habiibi quluubunaa tahwaahaa daarul habiibi quluubunaa tahwaahaa